jërëjëf kon ñu àndandoo dem euh, ca géejawaay fekk fa Lat Diop Baye Assane nee na bu nekkoon ministre de l'intérieur bu Sénégal xaw ma nag ndax keleen dee la wala lu mu ci doon jàpp nañu daal mënal na Ousmane dara Ousmane nee na su boobaa Ousmane Sonko dootul dugg Touba euh, laat moom li mu wax ay waxi nit la wala jàpp nga ne moom laat li mu wax war naa mën a. waxi nit la kay waxi nit la waaw. Ousmane Sonko dootul dugg Touba. dañu ma nekkoon ministre de l'intérieur. waaw. Ousmane sonk dugg Touba. wax ni la lool ndax wax na dëgg wax na wax na dëgg wax na. waa ci teg ba tojal. moom mi ngi mais doonul ministre de l' moom géejawaay la nekk te xam nga géejawaay ak Touba dañoo soree. Hmm. géejawaay ak waaw dañoo soree moom mënu koo seere ministre de moo mën seere foofu ministre de l' moo mën a seere diggante bii kon ministre de moo war a jëli matukaayam ba du dugg Touba waaye moom géejawaay la dëkk mën naa seere géejawaay moom daa war a na wax ni man de Ousmane Sonko moytuma ko mu dugg géejawaay hmm. maam Touba daa sori mën naa yem géejawaay. ah Ousmane dugg na géejawaay ay yoon de. waaw Ousmane bërki démb rek dugg na géejawaay te ma nga fa. kon bu mu si tudd Touba na si génne Touba ba mu set. moom mu ne Ousmane Sonko moyatuma ko mu dugg géejawaay ndax nitu fitna la. waaw hmm. ah. ndax mënul nekk géejawaay yilif géejawaay ànd ak waa géejawaay doon fa politicien ndaw ña topp ko mu bàyyi Ousmane Sonko. Ousmane di dugg di naan café lu ne. waaw mu ni nitu fitna mu bàyyi ko mu ni du dugg Touba ndax nitu te ña nekk Touba nekk géejawaay mu bàyyi ko mu dugg géejawaay ba pare naan du dugg dugg Touba. loolu du yoon na ko tere géejawaay ba pare doog ko war a war a joxe a ñu tere ko Touba. d'accord hmm. alaaji hmm. yéen waa géejawaay lu leen Ousmane Sonko def. wala Diop de dafa yàgg échoué parce que moom taxawoon na ne Ousmane Sonko du dugg Géejawaay lii Assane di wax sax la Diop mës na ko wax. Ah. Ousmane ko jaar buntu këram. xoolal gis nga fu jaar buntu kër la Diop. nga yàgg naa tere. xam nga dafa xam nga dafa yàgg échec <laughs> mais nag dafa waxaat beneen wax bu garaaw. Hmm. maanaam euh, dafa mel ni léegi kon Touba moom ministre de l'intérieur mooy xool ku fay dugg ak ku fa du dugg. Hmm. parce que dafa mel ni ministre de l'intérieur léegi moo am doole jooju parce que dane bu ne bu ma dekkoon ministre de l'intérieur. Hmm. Ah, moom waxut sax ne sëñ bi dafa waroon a joxe ndigal. Mm-hmm. parce que comme que Ousmane Sonko day déglu parce que Touba dëkkub jàmbur la. Mm-hmm. Ah, ministre de l' intérieur cër bu mu fa amit dafa am ko ko koy jox. Mm-hmm. waaye bu ñu demee léegi ba mu ministre de l' intérieur di seppi kuy dugg ku dul dugg. Euh, te tegu ko ci ndigalu sëñ bi. loolu moom war nañoo xoolaat ay mbiram moom Lat Diop. d'accord parce que ni mu waxee Touba doxee wut comme yeneen dëkk yi. mais dafa bëgg a wax ni rek lii fi xewoon bañ. lakk lii fi xewoon. lii fi xewoon. lii fi xewoon xam nga lii fi xewoon yëpp lenn ko indi. ñu bëgg a génn Touba ak ñu ne leen du génn Touba. waaw hmm. toog leen Touba. mais am na ku ma dégg ñu ne euh, dañoo taal ay pneu ci jumaa ja loolu xam naa loolu bees la. Euh, xam nga copain waa ji. <laughs> rectifier <laughs> comme toogoon na ko rectifier rek erreur day am ci communication. <laughs> non non erreur la erreur la. non erreur ba mais non taal non taal ko Talla Assane Assane Assane ba xëy envoyé ma bi <laughs> waaye kii rakk ji nee na ba bii moom bu leen ko teg teg leen beneen. <laughs> erreur rek demal ñu bëgg a génn ak ñu bëgg dugg. baal ju waxee baal jumaa ji jàll loo koy buuxee sooy Assane bu wóor na yàlla non non non parce que Assane Assane dana dana ma rey parce que <laughs> koy envoyé am Assane dana di enfoncé fu mu toll toll na di pëtëxal pëtëxal yi wax Assane ci plateau bi Assane en dehors de plateau bi moo moo dàq parce que en dehors bu paree plateau bi wala balaa muy def ruube yi muy indi ci biir gi gars lu waa Touba mu wekki ko <laughs> <laughs> indi vidéo boobu koy envoyé léegi indil ma vidéo bu koy wet nee na boobu du bu baax te loolu même nit kee ko wax non non kaay wax la ah. Assane Assane defe naa di muy liggéeyale waa Pastef yi waa Pastef mënuñu ko liggéeyal seen bopp sax parce que Assane diabolisation yëpp balaa ñuy kii dana ko kii bal jàmm rek mi loolu bal jàmm yaa déggul ni la ko moo koy waragi. non non baax na waragi mu dara xoolal lii rek ah. ah. xoolal lii keroog ba ma envoyé kii naan ma ah, son bu duma ci rus sama mbokk mi xool ko mi ngi nii dugg ci pax. lii bu wax ni xoolal booy booy Pastef yi jaaxal nañ ma xaw ma nuñ def ba indil ko lii la xew ca jumaa ja nuñ koy wanee booy yi dañoo dangereux <laughs> azad gars yi kat azad du ñun kat ginnaaw ñun jabolisé rek la ñuy def te buñ trente minutes ñu dindi jabolisé gi gars yi ñoo gaaw même Baye Fall ba gars yi détecté nañ ko waaw gars doomu Baye Fall ah. ab APR la ak médicament ah, politicien bu mag conférence de bi yàggul war ni bàyyi naa Macky ma ko ma leerali Ah, kooku kooku moom xam nga kooku moom diabolisme bi dafa ëpp ndax moom daa wax si turu Baye Fall te Baye Fall ñoom seen yoon nekkul si politique hmm. moom na politique na dani man daa war na wax man ànduma ak Sonko Sonko day nangam amul problème politicien ah, ah. ñun ñun suñu diabolisé xam nga ñu ñu ngi si ñu ngi woon ànd xeex Ousmane Sonko léegi yooyu nag problème bi mooy Assane ñu bari ay jamono loolu daan na dox hmm. diabolisé parce que waaw ay jamono bi fi presse presse classique bi kese hmm, nekkee ak yooyu yenn yi doon na dox waaw parce que mën nga diaboliser nit amut fu mu toll mu mën a leeral problème la day yàgg hmm. mais léegi ak kiiwu internet da ngay ñëw def lenn léegi benn waaye dindi ko ci saa ah. donc loolu donc moo tax ñoom pour politiciens yi diaboliser il faut que ñu gën a xereñ tuuti ñun ñi liggéey diaboliser ka yow ñu xalaat beneen liggéey mais yow li nga doon wax fii démb hmm. am na booy bu nekk ci tele may mun a ah dégg naa sax ci xabaar mu baal ma may mun a nee na nekkatul ca téléem ba waa booy bi dafa jël kàddu Ousmane Sonko bi mu ne. ah gis naa la si kii bi maa ngi la doon suivre mais c'est bien. mais c'est grave mais booy bi mu suñu lim dagg. Euh, waaw parce que parce que ñaari affaire moom dal ci sa vidéo bi damay seetaan. Mhm. nga tax booy bi ma ne ah son bi nag lii waru cee dugg. Mhm. carrément loolu laa wax quoi. Mhm. ma déglu. li mu def li nga wane ni moom la def. après wane kii ma ne ah war na cee dugg parce que. Hmm. kii li mu def. du jëmmi booy bee ma taxaw waaw waaw mais kii bi quoi. gis ah. naa li nga xam ni moom la hmm, def. parce loolu suñu liggéey la nag dañu jàppalisee. moo moo li mu def ñun dañuy jàppalisee ñun ñu. ko après bon bi ma gisee ma ne ah waaw lii moom jar naa. mais ñun ñun mais loolu dafa garaaw de. Ah. Eh, ñun waa APR weesu na garaaw weesu na garaaw parce que am na loo xam ni am na loo xamante ni ñun dañuy diaboliser am na loo xamante bi rafetul dañuy ba noppi nag bëgg a poser nit mel ni comme nan ndax ku responsable dina wax lii ndax yeewu leen non c'est extraordinaire ah, dafa grave moom dong ko ñun dañuy diaboliser rek ñun moom nuñ mën a def ba yàqal Sonko si lañ nekk ah, mais na naagis na na kii rek na ah, naagis dañ ko yàqal rek man d'accord naa yàq mais na naagis dañ ko gaaw rek waaye bu ñu yeexoon tuuti ñu am ndam <laughs> booy Sonko yi dañoo gaaw dañuy diaboliser sonn si bay bëgg a dee teg du mat 30 secondes ñu indi ñu original bi. Ah, wala dindi ko sànni ko fële. non non loolu kii la rek bàyyi yooyu nañ bàyyi yooyu nañ ñu bàyyi ñu def suñu liggéey jabulise. ayca ah. Mamadou Ka jërëjëf jërëjëf ma waajoo jo. kenn booy kay vidéo photo Mollah ba bañ ko indilee vidéo waaja. Ah. man boobu laa jombi. booy dañoo gaaw. waajal lañ koy Mollah ba mu ba ñu tafee photo ba photo bi ñu monté woon. mooy waajal ci loolu indi vidéo waaj ci boppam. ah ok waaw waaw waaw. waajal ca waaje fàmb yi muy laqar laqar ji tooñ tooñ nañ waaja sax nag <laughs> ñoom ñoo yóbbee ndax waa ji nekkoon na si gunda àndaatam kenn xamula ko woon dara mu ngi nii feeñ na d'accord nag bàyyi yooyu ayca maam Awa Bousso neex na choix bu waxal ci Baye Assane Mesere daf ñuy werd euh, kurus pour ñuy biddanti maam Awa Bousso dinaa la jox suma paree mm. mm, dinaa la <laughs> léegi maam Awa Bousso xoolal suma paree <laughs> dinaa la jox ay ay dinaa am benn dog bu ma la jox nga di ko jël insha allah boo ko mën di jox loo xam ne booy nelaw da nga koy da nga koy ëpp sa da koy ëpp sa kii bi rek nelawaale ko ah. insha allah